Elmat Dieng ni ma ci livre Elmat Elmat Niang waaw ni ma ci libre bi man dama ci tàgg <laughs> nee na Elmat Niang nee na <laughs> Elmat ci libre bi man dama ci tàgg Macky Sall ak jabaram dama naa xas ci Ousmane sonk mais yow doo Macky doo mbokk Macky Sall doo mbokk jabaram Elmat sincèrement boo nee dama tàgg Macky Sall ci livre bi mooy doo mbokk Macky Sall doo mbokk jabaram boo nee dama xas Ousmane Sonko ci livre bi mooy dégguloo livre bi liiroo livre bi képp ku ni man dama xas Ousmane Sonko ci livre bi mooy déggoo livre bi liiroo livre bi amul benn chapitre bu ma def analyse politique ci réew mi boo xam ni teguma la dualité entre xa Macky Sall et et amul xam nga waa Pastef dama dama yaakaar ni mënuñoo lire quoi. non mënuñoo lire non honnêtement mënuñu lire livre bii xoolal ñoom seen combat livre bii mooy arme bi ñu gënoon mën a am ci seen combat pour li li des ci seen dund lii nag raw na leen waaw xam nga lu tax parce que dañuy concentré non non c'est li ma la wax nii c'est très important liiral boo bëggee xam ba xam livre bi dafa baax ci ci Ousmane Sonko wala liiral. le chapitre sur la tache noire d'une troisième candidature sur l'histoire du Sénégal lire ko wala nga lire cette affaire Adji Sarr Ousmane Sonko qui fait l'affaire de Macky liir ko nga ma ne waxuma nga liir ko lire fanatique da nga koy lire liiru boroom xam-xam wala nga liir kon introduction bi nga xool introduction bi nga xam ni mooy partie bi ëpp importance ni mu chuté nga lii ko nga xool ba xam lii bi day xas Ousmane Sonko wala de et puis il faut moo wax leen dara ci Ousmane Sonko pour ngeen xam Ousmane Sonko je n'ai absolument aucun problème avec Ousmane Sonko il faut ngeen xam ko Ousmane Sonko mooy lan dañoo man ak moom histoire personnel xam nga mooy lan man ak moom ñoo bokk ci même université bi ñuy jàngee moom dafa jàngee université Saint-Louis ba pare bi mu demee mu def concours dem ENAM man ma jàng université saint ne am dem yokk yeggale sama jàng ci réewu tubaab bi n'est-ce muy nit koo xam ne nii il existe dans le champ xam nga seen àdduna loo gis ku ne dafa am rôle ku ne dafa am ci loo nekk Ousmane Sonko rôle am waar bi muy bay mooy politique c'est normal mi ngi ciy def li muy def man waar bi may woy mu baar waar bi may bay mooy journalisme maa ngi ciy def li may àdduna noonu la donc ma créé Yérim Post invité ko mu ñëw. ñu def interview yaa ngi dégg ma créé Yérim Post invité ko mu ñëw ñu def interview mu wax wax boo xam ni boo demee ci interview di nga ko gis mu tàmbali interview bi ni ma grande ma kontaan jàkkaarloo yow parce que man université bi ma ñëwee yow ak ñeneen ñu mel yow lañu ma jox comme modèle donc fierté la pour man ma ñëw jàkkaarloo yow parce que ci yéen lañu doon rey bi ñuy jàng foofu ñu pare interview bi tëju wax ci senegal mu wax ma wax joo xam ni waxu nit la. da nga baal ma ci engagement lan moo tax mu jon politique et cetera ci problème mu Sénégal yi mu wax ma moom lan mooy ay solution wax ma aussi loo xam ne lu ñu mën a dégg la man aussi li ma xam ci àdduna bi ak ni mu tëddee ak danger yi koy gete yëpp ma wax ko ko parce que réew àdduna bi dafa am force yoo xam ni tey xëy na boo jëlee nguur ba pare mën nga leen a jàmbu waaye boo jëlee jëlagul nguur mënoo leen jàmbu lu mel ni le lobby pétrolier par exemple ak bi ñu toll ci àdduna bi le lobby juif et cetera bref ñu waxtaan ma wax ko li ma xam ni force yi nga xam ne jàpp naa ni war na leen bàyyi xel ci yoonam ba àgg fi mu jëm donc awma benn benn problème ak Ousmane Sonko au contraire boo liiree bi da ngay gis ni maa ngi rafetlu bu baax taxawaayam. mais attends j'ai écrit dans ce livre nii pale bi li muy neex neex oru pale bi li ñuy rafet rafet rafet lambri doriru pale bi li muy neex neex neex Macky bu fa tuddee Ousmane Sonko moo koy teree nelaw bind naa ko wala bindu ma ko bind naa ko wala bind ma ko bind naa ko wala bind ma ko voilà Ousmane Sonko dañoo am ay xarit yu ñu bokk xam nga Sénégal Sénégal dafa non demal naa xoolal xoolal Sénégal Sénégal Sénégal dafa tuuti gis nga dédicace boobu indi coow li ki tax ma defal ko Ousmane Sonko xaritam la sama xarit la dañoo bari xarit yu ñu bokk bari fu ñuy retrouver wu tu comprends ma respecter engagement ci politique cër bi ko yàlla jox ci politique ci Sénégal ma delloo ko ko parce que yàlla moo ko def mais nag du yàlla du yonent bi du kilifa diine danga wax bi te damay def distinction man entre relation yi am ak nit ki ak bu may def sama métier ci politique ni may waxe ci moom xam nga ne Macky Sall sama mag la sama mag la lool depuis 2001 sama mag la sama mag la trop trop trop depuis 2001 laa wax pourtant bu may wax ci li mu bind boo lii les revues da ngay xam ni amul lenn lu ma jàpp ni waroon na ko def te defu ko te binduma ko ci libre bi Amadou sama mag la de. Amadou Ba non euh, Elmat da may déglu nag ah xam nga tey xam nga xam nga fexe ba ba maa ngi wax. dangay bàyyi ma wax Amadou Ba Amadou Ba déglu baax la ma Amadou Ba sama mag la de sama mag la da xam nga àdduna man je am na ñoo xam ne nii am na ñoo xam ne Sénégal dafa am lu ñuy dund guddi ak lu ñuy dund ba man meluma noonu non Amadou Ba sama mag la mais boo liiree la problème aamadu Ba ci livre bi xam ni li ma xalaat ci taxawaayu politique am bind naa ko ba mu jeex tàkk. parce que nit ñi il faut ñu def la part de choses entre entre ñu distinguer entre rapport personnel yi ngay am ak nit ki ak li nga xam ni bu réew mi taxawee ak intérêt mi taxawee ni nga war a waxee man loolu laa gëm faruma kenn contre ma kenn képp ku liir libre bi ni man dama far ak kenn wala dama contre kenn yow yaa far kenn wala nga contre kenn loolu mooy dëgg beneen bi ci topp mooy politique du diine du tarixa du diine du tarixa yéen waa Pastef yi non dama la dama la dama la dama yéen waa Pastef yi non dama ndànk dama leen def naan non c'est important da ngeen war a jàng da ngeen war a jàng ni. dangeen ngeen war a jàng ni c'est pour seen intérêt combat politique yéen seen combat politique seen combat pour mu baax seen combat politique pour mu baax da ngeen war a jàng benn affaire mooy la relativité àdduna lépp weexul tànn lépp ñuulul kukk képp ku la wax ni Sénégal fii dafa am boor boo xam ni dafa am ñu bon am boor boo xam dafa am ñu baax waxul dëgg su ma déggee ñaan Ousmane Sonko mu sell mi sell na sellul kooku yàlla moo ko xam mais man li ma seetlu mooy ñi développé seen pays yëpp en Afrique partout dans le monde selluñu en tout cas sell ni ñu koy woowee ci Afrique ci ci ñu ko gisee ci l'islam Kagame bu fekkee ni sell li ñu koy woowee ci l'islam lañ koy sellul Deng Xiaoping sellul Kikwete sellul. John Kufuor sellul mais ñoom ñëpp seen réunion fan la parce que xawlal yéen seen leader bu leen ko laaj lu ëpp li ñuy laaj li ñu war a laaj ku war a jiite réew xam nga xam nga boo jiite réew lan lañ lay laaj boo jiite réew xam lan lañ lay laaj ñaari affaire ñetti affaire lañ lay laaj nga am vision nga am vision maanaam yow nga am xalaat ci fii réew mi war a jëm deuxièmement nga bëgg réew mi parce que bëgg réew mi moo tax ngay bàyyi lu bari di bàyyi loo lu bari say ñoñ pour mën a àgg fi nga jëm troisièmement nga am xarañteefu loolu nga xalaat nga def ay pexe ba yóbbu fa réew mi c'est tout kenn laaju na nga sell kenn laaju na nga nekk yonent kenn laaju na ngay ngay ngay fanaan aras kenn laaju na ci lenn donc loolu bu leen ko laaj Ousmane Sonko c'est pas important xam lan moo am importance na am vision na bëgg réew mi na am ay pexe pour fa mu bëgg a yóbbu réew bi mu yóbbu ko fa c'est tout mais nag pour vraiment pour te rassurer awma benn problème ak Ousmane pour te rassurer sax bis bu ne samay xarit yu ñu bokk man ak moom di wax ak man di wax ak moom pour nga xam ni amuñu benn problème ba pare li ma jàpp man li ma jàpp mooy politik politique warul boole kenn xam nga bu ngeen xamoon homme politique yi ñoom ni ñu mel ak politique ni muy doxe ak ñoom ñi ñuy dundee dangay xam ne jarul la meroo kenn parce que ñi noonoo tey nii mais xoolal Idrissa Seck ak Macky Sall tey nee nañ mburoog soow lañ xoolal yaa quelques années si ginnaaw lan moo xewoon donc politiciens yi jaruñoo xuloo jaruñoo xeex yëf yi ndànk rek parce que lu ne mën na xew ci politique li si des nag mooy fi ñu jëm kenn rek moo xam kan la yàlla di jox yi kan la kan mooy jote fi mu yàlla c'est dama loolu dama ko gëm pour man nguur yàlla moo koy joxe képp ku yàlla tudd ni mooy toog mooy toog aw ma ci problème xawal man ku mën a nekk président Sénégal changé wul dara sama dundu man wutuma poste wutuma marché public ay entreprise privée laay yor li may liggéey lu ci ëpp du ci Sénégal man wax bi may wax ci Sénégal bëgg réew mi moo tax mais sinon ça m'apporte rien xool ay ennemis rek la may indil jariñu ma dara dara dara dara dara xam naa nga baax li mu bëgg su ma neexoon Sénégal sama yoon du ci nekk sama yoon du ci nekk comme naan nga su ma neexoon sama yoon du ci nekk aw ma problème man macha allah aw ma problème yàlla moo ma defal loolu mais li tax may impliqué ci Sénégal lenn la yàlla daf ma nattoo bëgg réew mi dem c'est loolu. ñi ñi jóge Sénégal ñi jóge seen réew dem dund à l'étranger lu bari loolu yëpp daf leen di dal gis nga boo boo jógee fii dem ci tubaab yi dëkk tubaab yi jàngandoog ñoom ci même école yi nga jàngandoog moom ci même école yi nga xool ni ñoom bu ngeen di jàng ci même école yow yaa leen di raw ñoom ñu génn di defar seen réew yi tali yi baax santé bi baax lépp di dox électricité bi di coupé. ku feebar ñu faj la ku ñàkk sa liggéey ñu fay la mais attends après dangay ngay sa xol day bon loolu moo ñu dal xoolal amul kenn koo xam ni dund nga lu yàgg à l'étranger ñëw te li xew ci réew mi du dagg sa xol bi man dama toogoon bëggatuma woon wax parce que ça ne m'apporte rien mais mënoo fexe ba doo wax parce que da ngay toog sa xol bi dafay dagg c'est ça le problème au fait nga gis nit ñi di sonn di dee xaalisu réew mi kenn jaarale ko yoon. gars yi di surfacturer ay marché di sàcc xale xaalis di def n'importe quoi mais loolu daf lay metti c'est man ku mën a ñëw pour defar réew mi di bu yàlla namee ni Ousmane Sonko la yàlla na ñëw te defar réew mi xam nga la moo importé man na Sénégal mel noo xam ni doo génn sa buntu kër fekk ndeysaan jigéen mu taxaw yor doomam yor ordonnance na la si suba ba léegi maa ngi lay xaar pour mën a fay sama ordonnance yooyu quand tu as vécu tax à l'étranger dafa lay choqué il faut ngeen xam drame bi nit ñi di dund au fait parce que ñu bari xamuñu lan mooy sama moteur yaa a beaucoup yoo xam ñi ngi wax ci man xamuñu lan moo ma animé il faut nit ñi xam lan moo nekk ci sama biir lan mooy lan mooy tàngal sama yaram ba des fois may wax may bind may mais attends c'est ça le problème dama bëgg réew yu baax c'est tout yàlla na yàlla defal ñu. ñu tombe ci ki gën pour defar réew mi c'est bon maintenant y a un autre y a un autre euh, Ba boo xam daf ma laaj ni ma lan mooy sama analyse ci façon ba nga xam ni noonu lañ traité dossier aji Sarr ak usmaan sonk lan mooy ci sama xalaat honnêtement honnêtement mënuma ñu ni dañu nekk ci benn république république di façon réew boo xam ne nii di façon réew boo xam ne nii li koy doxal ay règle la ci biir réew mi ñu ni dafa am ñetti pàcc dafa am executif am judiciaire am législatif judiciaire liggéeyam mooy àtte diggante nit ak nit ñuy àtte àtte boobu àggul man ma taxaw ni dama ci dama ciy wax dara duma ko def vraiment loolu sax dafa bokkul sax ci maandute ma maintenant euh, Idrissa Kébé Dramé nee na ma lu tax lu tax may wax sikaat ah voilà si voilà d'accord mu ni ma lu tax may wax lu tax may wax ni sikaat financement bi ma koy décrier ba pare ci réalisation bi ma koy cité loolu nga wax waaw lu tax may lu tax may def loolu même bu ñu sàccoon mille milliards waaw dafa naa dafa naa dafa naa dafa non sali non non non non non non dama dama bëgg ba nga bàyyi ma leeral la dama dangay bëgg rek ma bàyyi ma leeral cest à xoolal SICAD bi bu ñu ci sàccoon mille milliards mille milliards te mu am rek. dafay bokk ci bilan infrastructure Macky Sall non j'ai pas salué jamais salué dama ni dama ko cité ci bilan parce que même buñ ci sàccoon 1000 milliards ci bilan la bokk nga ni Pape Alé Niang dama ni dama ni nga ni nga ni dama ni Pape Alé Niang dama ko waroon dama ko critiquer quoi non da non d'abord li dafa leer xam nga xam nga xam nga lii mooy boole ay nit parce que Pape Alé sama frère la sama xarit comprend nga booy wax da ngay wax li ma wax ci moom lépp bi ma njëkkee tàmbali non waaw no non non non non non parce que boo nee dama ko critiquer j'ai pas j'ai pas dit ça critiqué wu dama ni dama wax ay qualité mu wax ni sur cette affaire de l'immeuble de Mermoz def na erreur mais erreur ñëpp a koy def erreur boo ko defee ci journalisme da nga ko war a rectifier mais loolu du ko critiquer ko. voilà jeex na nga ni dama ko critiquer après nga ni nga ni léegi nga ni léegi continuer de tout ça lan moo tax man affaire Tullow Oil ma wax ci ba pare après j'ai pas présenté mes excuses mon frère yow journaliste nga.